nettali bu wér bàyyeekoo ci imaam Buxaari ak muslim Abu Hurayra moo leen koy nettalil benn bis yonentu bi sallallahu alayhi wa dégg na muy wax ne dafa am ñetti waay ci banoo Israël kenn ku gaana ak kenn ku leel ak kenn ku sëlmaxa waaye yàlla sunu boroom bëgg na leen a nattu ngir seetlu leen benn bis mu daal di yebal malaayika mu ñëw ci ki nga xam ne dafa gaana malaaka mi ñëw ne ko ana lan nga gën a bëgg sa dund ma defal la ko gaane gi ne ko xanaa ma wér sol yére yu rafet gaane gi nekk ci man daal di dëñ malaaka mi daal di koy raay gaane gi nekk ci moom daal di dëñ mu sol yére yu rafet mu ne ko lan nga gën a bëgg ci alal ma defal la ko mu ne ko giléem laa gën a bëgg mu defal ko giléem ne ko giléem gii nag dana jur giléem yu bari yàlla moo ne ko barkeel malaaka bi daal di ñëwaat ci ki nga xam ne dafa leel mu wax ko lu mel ni la mu waxoon kële ki leel nag daal dina ko xanaa leel leel gi nekk ci man dëñ ma am karaw gu rafet am yére yu rafet malaaka mi daal di koy raay leel bi daal di mu daal di am karaw gu rafet am yére yu rafet mu laaj ko lan nga gën a bëgg ci alal mu ne ko xanaa nag malaaka bi daal di koy defal nag boo xam ne dafa ëmb doom yu bari mu ne ko yàlla moo la ko barkeel malaaka mi daal di ñëw ci gi nga xam ne sëlmaxa la mu wax ko lu mel ni la mu waxoon ñële sëlmaxa mi ne ko xanaa sëlmaxa bi nekk ci man daal di dañ ba ma mën a gis doomu aadama yi malaaka mi daal di koy raay sëlmaxa bi daal di dañ mu sol yooyu rafet mu laaj ko lan nga gën a bëgg ci alal ma defal la ko mu ne ko xanaa ay xar mu defal ko xar ne ko xar mi dana jur xar yu bari yàlla moo la ko barkeel giléem gi daal di nay doon giléem yu bari nag bi itam daal di doon nag yu bari xar mi itam daldi doon xar mu bari ci benn jamono nag ab diir malaaka mi daal di ñëw ci melokaanu waaju ñàkk njëkkee ci ki nga xam ne moom moo nekkoon gaana gi te yor alal ju bari léegi ay gileem bi mu ñëwee ne ko man de waaju ñàkk la damay def voyage waaye yàlla dogal na aw ma dara ma bëggoon nga dimbali ma te yàlla rek tax ginnaaw bi nga xamee ne yàlla dimbali na la nga lijjantil ma lenn ci alal ju ma mën a voyager yaakaaruma ci kenn ku dul yow ginnaaw yàlla bi mu ko waxee ki nga xam ne moom moo nekkoon gaana gi waa ji daal di koy tontu ne ko góor nga demal liggéey mu gën ngay wéeru ci kenn loolu moom duma ko man mu ne ko xanaa yàlla dimbaliwula woon bu njëkk amoo woon dara danga wéeru woon ci nit ñi yàlla moo la xettali nga gaana woon yàlla wéral la nga ñàkkoon yàlla may la mu ne ko yàlla may moom man maa may sama bopp ndax coono laa daj avant may am loolu mu ne ko bu fekkee coono nga daj yàlla may la ko kon xaaral bu fekkee yàlla may la ko dana ko jëlaat léegi ci noonu lépp daal di demaat mu melaat na meloon malaaka mi daal di ñëwaat ci waa ji nga xam ni moom moo leeloon mu wax ko lu mel ni la mu waxoon ka ca des waa ji daal di koy tontu ne ko demal nga liggéey moo gën ngay ñaanaatu mu ne ko man day ñaanaatuwuma ndax damaa ñàkk comme ni nga xam ne noonu nga ñàkkoon ndax dangaa leeloon amoo dara yàlla dimbale la mu ne ko yàlla dimbalewu ma de man maa góorgóorlu ba am li am mu ko su fekkente ne yow yaa góorgóorlu ba am li nga am li nga amoon yëpp di ko ñàkkaat bu fekkee yàlla mayu ko ci noonu mu daal di delluwaat mel na meloon malaaka mi daal di ñëwaat ci ki nga xam ni moom moo sëlma xawoon mu wax ko lu mel ni la mu waxoon ay moroomam sëlmaxa bi daal di koy tontu ne ko man de damaa ñàkkoon lool sëlmaxa aw ma dara yàlla xettali ma ba ma am li ma am kon nag lépp loo yittewoo jëlal te yàlla rek tax malaaka mi daal di koy tontu ne ko man malaayika la duma ku ñàkk yittewuma li ma lay laaj yàlla moo la doon nattu di la seetlu bi si tey jàppal ne di nga texe ba faw kon mbokk yi ku am yàlla moo la may waaye ku ñàkk yàlla moo la xañ nañuy dimbalante sunu biir ndax doomu aadama lu ko yàlla nar a dimbalee ci moroomu doomu aadamaam lu koy jaarale moo tax mu def malaayika bi mu mel ni doomu aadama gis ngeen bu baax ne nit dina am alal ju bari te fekk lu ko jiitu woon dafa ñàkkoon léegi léeg yàlla yebal ay nit ñu ñëw ci bërëbam di yalwaan te fekkte ne duñ duñ ay nit waaye malaayika lañ doon yoo xam ne yàlla moo fay jaare ngir seetlu leen buñ leen gàntalee wala ñu toraxal leen at mooma nag ngay seetlu ne ñoom ca la ñuy doxee ñàkk accident mu ne ni dal wala lu métti dal leen ordonnance yi bari ñu jaaree fa ñàkk seen alal wala lakk dal leen wala ak métit dal leen boo xam ne ca dañuy jaaree lépp lu ñu amoon ñu ñàkk ko ab jullit bu ko yàlla bëggee dimbali daf koy nattu kon nañu góor góorgóorlu bu baax ndax yàlla sunu borom ma wax ci alquran ne lan tanaaloo birra xataa tunfiqoo mimma tuhibbuuna yàlla nee na nit ku baax mooy ki nga xam ne suy joxe day xool lim gën a bëgg ci ñam wala ci alal mu joxe ko waaye lekk ba desal wala xool loo xam ne soxlawoo ko nga joxe ko loolu amul benn njariñ nit ku baax du def loolu taalibe yi yalwaan bu ñëwee ci kër di yalwaan dangay ngay ne nit ñi dañuy lekk ba desal door leen a jox te loolu baaxul ndax alxuraan dañuy jàng moom mooy lépp te itamit njariñ bi ak importance bi doomu aadama yi xamuñu ko.